<laughs> Rick maa ngi lay euh, nuyu ak Amina Coulibaly Mass euh, fàttewuma wala di la nuyuwaat bu baax a baax Mass Mass plutôt Marème Diagne Aliou Touré maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ak Assane Diop gis naa commentaire yi AG ñoo ngi lay ah. mais gars yi commentaire yi nañ ci gën a nañ ci gën a dal daal amul benn solo ñoo bokk ci nekk joxe xalaatam rek amul benn problème ñoo bokk waxtaan wi donc na yi di rafet aleykum salaam maa ngi fi maa ngi sant yàlla yaa si jàmm. ça va bien foo ñuy woowee. man Italie laay woowee. Italie naka waa Italie. waa ñuy sant kay alhamdulilah. Ah, eh, waa Italie moom xanaa émission bi yéen ko moom ndax ñeenti nit ñu mujjee woote yëpp Italie lañu nekk. ah waaw. ah ca bismillah tey moom am ngeen ci wàllu bu baax a baax yow lañuy ñuy teewloo. ah. Mhm. waaw maa ngi man si affaire Mame Mbaye ah ca bismillah. waaw maam bay Niang moom li mu def ak Sonko allo. oui yore nga ñuy déglu sëñ bi. yaa may dégg. waaw waaw. ñoom ñëpp lañu war a xool càmbar seeni mbir parce que ñoom ñëpp politiciens yi ñu bëree bëree bëri alalu askan wi doon jël tëdd ci ñu mel ni Mame Mbaye Niang man maa ngi woo maa ngi dëkk Jandeer. Mhm. foofu ay hectare hectare hectare hectare lañ fa indi la fa indi jënd foofu suuf yëpp ay hectare jël sanu xaalis Sénégal yëpp ñëw di ko rawale si suuf si fi ñu toll yi seen xaalis yu bëri dañ koy jël di ko dem si si àll yi di fa investir ay suuf jënd fa ay milliards et milliards Mame Mbaye boo xoolee jëndeer dëkk bu naan sànc foofu lam faire si suuf moom bi mu juddoo léegi rek buñ ko xoolal chaque weer sax ñu koy fay un million amul loolu ah. mais kon loolu révélation bu rëy la di. ah. ma ne li nga wax révélation bu rëy la di. wa waaw barki Serigne Fallou laa la wax kay demal jandeer dëkk bu naan sanc ah jandeer kañ xam naa ko. jandeer xam nga ko boo ñëwee ba bayax mhm. boo génnee bayax njar nga si teg boo ñëwee ndaam nga si teg corosement sanc mu ngi foofu. foofu mhm. duggee ay centaine de milliards la fa dugal. Hmm. def fa ay ay xar ay nag élevage tout ça mais ñun si ban dëkk lañ nekk. day na waar. ah. Hmm. yow imagine Sénégal ñaata millions de habitants la. dix huit. te bañ koy mujjee saytu. Hmm. waa dix huit millions de habitants. léegi imagine nit ku nekk yor rek nit ku nekk. dix huit huit yi bu ñu liggéey Sénégal dóor jóg na fa. Mhm. kenn ku ne yor kenn mais jël xaalis ñu jël teg la ay ministre ñu jël xaalis yi xam nga di rawale si si dëkk kenn bu ko xam moom xam na li may wax. Mhm. waaw te tey jii nii yow mii nekk ci émission bi nii bu leen neexee jël leen ngeen def opération ngeen def fi ma leen wax man lu ma leen di wax lu leer laa leen di wax. Mhm. waaw foofu noonu ay centaine de milliards lañ fa yor loolu du yoon. Mhm. waaw fi ñu toll nii ñu bëree bëri seen xaalis xam nga lu ñu def dem ay teere xamante ay centaine de milliards dem jël xaalis yi. Mhm. di ko jënd suuf si di ko far rawale. Mhm. mais pas ñuy jël xaalis naa dañ koy yóbbu bànk banque xaalis yi ñuy rawale banque dañuy jël seen seen turu doom seen turu jabar seen turu xa. prête non daal. Ah, ah. allo. allo waaw. waaw ma ne kon ay prête-nom daal ay prête-nom. ay prête-nom la ñuy def alal yi. Hmm. li des mooy dañuy def diggante ne ay route de Diender boo demee foofu noonu. Hmm. xoolal foo laaj am na mooy diwaanu Mame Mbaye ñu dëkk si tund Diender sax bi ñu xam ne nii Mame Mbaye Niang moo ko am. Hmm. loolu yàggul fan yu néew nii rek la ñaan fa lañ dëkk seen dëkk xamuñu ko woon. ay ay Amadou Ba tout Amadou Ba boo génnee tali weex pour naan tali de Niayes boobu noonu yëpp ñoom politiciens yi ñoo jënd suuf fii ba Potou. fii ba Waalo di ko def ay pérénions. Hmm? doy na waar. yow moom li nga ah, fi li nga fi wax moom yow moom li nga fi xam naa xam naa ni xam naa ni su nekkee mbir mi enquête da ca war a am yéen waa Jandeer war ngeen ci indi ay leeral vraiment ak ña nga xamante ne ñoom ñoo tax ba Mame Mbaye Niang mi nga tudd léegi jot ca suuf yooyu ak lam fa jot a def ci investissement yépp loolu am na dund jandeer boo ñëwee ñoom xam nañ ne loolu am na parce que jamono yi sonk bi waa Pastef yi di def ay ay manifestation am na booy fa duggoon doon yàqaate mais bi mu leen tàmbalee tëj la xam nga Sénégal mi dañ nii xam nga yaa ma gën a xam mhm. parce que boobu noonu nguur gi fi nekkoon ñoom ñoo leen téeral seeni tànk mhm. waaw mais loolu c'est pas jaadu d'accord waaw baax na jërëjëf merci nguur gi fi nekk daal yéen bi moom yàlla na oyof. Mhm. yàlla na oyof ak ñun. amiin amiin ñun ñëpp ci jàpp. kenn ku nekk foo mën di nekk rek def li la war. boo mhm. gisee ku yàq. Mhm. nga bañ a kii ñëw defar. ñëpp ak Sénégal sunu Sénégal la bu baaxee ñun la baaxal. ñun la baaxal effectivement. bu bonee tamit ñun la bonoon. effectivement kon boo mooy jomaay moom yéen bi yàlla na oyof ak moom. amiin amiin waaw. baax na jërëjëf. merci merci beaucoup. Euh, kontaan ci ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu en direct euh, ci Télé Sénégal li mu wax itam man <laughs> de xaw na maa yéem nag vraiment waaye nag tund woo ku ko xam itam bëri na ay tool ya fa nekk ah ñoom Bayaax Jëndeer jàll ba euh, diwaan yu ci mel ni Béer ak Pout ah Bayaax diwaan yooyu yëpp vraiment bëri na tool fa nekk. tool yooyu nag ñaka moom ñenn ñi ay moodu moon lañ ñenn ñi comme ni mu ko waxee nag ay borom yi dara lañ waaye bëri na ay yi nga xam ne am nañ fa ay suuf yoo xam ne dañ ko fa jënd. waaye nag bii nag révélation boo xam ne xëy na war nañ coo war nañ ko gën a topp. allo allo oui. waaw ah, maa ngi émission bi. Mhm. waaw léegi man nag kooku ma nag. kooku wax na nit ki mhm. moom laay waxal ni ko mag day day day ay waxam da ko sóolal bu boppam rafet. Mhm. sax man yaakaar naa bu fekkoon tëj moo jaatu moom moomu li muy tëj. ndax lu ne yàgg na ko Ousmane Sonko ci wax bi ñaaw joo xam ni lu ne wax na ko ñëpp di ko dégg. waaw ñun nag lu suñu wax lu mu bari bari bari danañ ko solon mbubb ba mu rafet ndax am na droit bi ñu ni ne ku ñu mm-hmm. yaakaaroon ne lekkoon nañ réew mi. Mm-hmm. na ko indiwaat. bu mm-hmm. fekkee ni bëgg réew mi ne ci réew mi loolu nga war a wax. waaye nekk Italie di taxawaalu réew bi. ah dé leer bu fekkoon ne tey ma ngi liggéey. sëñ bi tey ñoo bëgg sëñ bi tey tey ñoo bañ a dugg ci détail yooyu am. moom moom moom lu mu nekkul sonk amul. lu mu nekkul sonk ci wax ju ñaaw amul ñun xam na ko bu baax. te la leer ngaay googee mu dëkk boo demee dëkk ba mu kër gam koñ ba mu dëkk amul lenn lu leen fa defal. sëñ bi wax rek fi nekkee yàq. waa sëñ bi léegi boo dégg ma naan jomaay jomaay ak sonko jomaay la falak waa sëñ bi sonko loolu lépp pour bëgg a jaxase. nekk maa war naa bi yaa may déggam bu ñun xam nañ lépp. allo ñun kenn mën ñoo jaxase. allo Sénégal kenn mën koo kii. allo yow képp koo xam yaakaar. Régis wàccal ma volume bi s'il te plaît. koo war a andi man man Samba mun dem ba ci allo waaw su nekkee sëñ bi moom muy dégg na calmé wu itam euh, comme ni ma koy waxee rek euh, ay attaque personnelle moom s'il vous plaît nañ buñ ci bañ a dugg vraiment euh, jotaay bi c'est entre internautes entre bien sûr wax sa xalaat la ku ci nekk daal mën nga wax ci mais bu ñu dugg ci ay attaque personnelle vraiment daal ku ci nekk mën nga tontu mais ba di dugg ci ay considération personnelle daal nañu yem ci waxtaan wi rek yemale ko ci cadre boobu noonu ba ñu dugg ci ay attaque personnelle s'il vous plaît dama koo ñaan nag ci njëkk Régis jox ma keneen oui. jëwriñ maa ngi lay siyaare. maa ngi lay delloo ziar. alhamdulilah naka taw feexi. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. rafetlu merci de kontaan ci yow foo ñuy woowee. maa ngi lay woowee Pikine. naka waa Pikine. ñoo ngi fi ñu bu baax baal la ñu ñoo ngi leen di baal àq yàlla nu yàlla boole jéggal. allahumma amin amin amin te kenn bañ a tawat kenn bañ a manqué. kenn bañ a manqué wallaahi wallaahi. am na solo bisimilah yow la teewloo. di ñaanal suñ kilifa diine suñ kilifa aada yi ñëpp mhm. di wax gaa ñu may tontonte bi mhm. waaw xam nga ñun Sénégal débat débat diine dañ koo ragal ay lii biram su lay jëw wax mooy wax yi waxi dëgg mais boo gisee gaa yi di tëb di ko jéem a tontu mhm. xamuñu fan lay waxee damaa jàpp ñooñu di ko wax di ko jéem a contre sax waa làmb ji dañoo waroon a kontaan ci li Birame Souleye wax. ndax mhm. li tax ñoom ñu waroon cee kontaan mooy. Mhm. yow nga jël ay millions dëgg ci combat. Mhm. léegi am yow amoo fenn koo yaakaar fu dul ubbee ko nit lu ma jox la xaalis pour nga mën a réussir sa bis boobu amul loolu risque la. te ñoom Birame Souleye bi mu waxee loolu ñoom dañoo waroon a woote